mu tëjale ci ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak i saxaabam dellu seen eh, thème bi ñu leen doon waxtaanal ci ajuma yi weesu te di istibaaru yonent yàlla salaam waaye mbokk yi balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi dina am tuuti rek lu ñu bëgg ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante kii bi ak yonent yàlla Yaqub te kii bi waxoon ko ne dañu ma tuumaal duural ma ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw ma ne nag da jaawale ndax baatu duur olof la duur moo ni sosal nit ki loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni la ca dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def du leen fréquenté nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fi nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindal D O U waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra kon ñi dégg ñu wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yeneen yàlla yuusuf alayhi salaam jël nañu ko dal ko dugal ci kas bi te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni mu ko tuumaaloon doon ko sàkku mu waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne ko dugal ci kaso bi waaye Yusufa deful dara loolu xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baatin su dee ci baatin nag gis nañ ne war naa dugg kaso ndax xel mi moom mooy li mujj mooyul waaye xel mi mooy la waaw léeg-léeg nag mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour ñu nga fara bakkaram léegi nag yeneen ci yàlla Yuusuf ci biir kaso boobu lañ ko mu nekk ab yeneen ci faxu raw bi mu ne waaye mu ne wax ne yeneen ci yàlla Yuusuf jot na nubuwwa lu jëkk muy am ñeent ci at nee yonent yàlla yaxya itam jotoon na nubuwaat lu njëkk muy am ñetti at ak yonent yàlla mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu kon yonent yàlla yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaat te mu mel ne tam dañu ko def sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar te ñu dugal ci kaso bi mu am fa fukki at maanaam bi ñu koy dugal ci kaso bi बहुमूल्य फुकी अकमत लेगी बहुमूल्य फुकी अकरोमिया फुकी अकमत बेने इंगया kunjungi kita sebutkan la amin eh, la jotin nubuwan ngir nak yonent yàlla yusuf alayhi salaam eh, dugal nañ ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu dugg ca kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ña mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeunes yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi kenn ki moo yoroon wàllu naanu buur bi lépp lu buur bi di naan ci loxoom lay kenn ki moo yoroon wàllu mburóom lépp lu buur bi di lekk lu jëm ci wàllu mburu kooku moo ko yoroon ñoom ñaar ñooñu nag def nañ dégâts bu leen dugal ci kaso keroog ba ñuy dugg ca kaso ba fekk ni itam yonent yàlla Yuusufa di dugg ca kaso ba ñu ànd na ñoom ñett duggandoo kaso loolu la alquran wax ne wa daxala maahu sijna fatayaani kon yonent yàlla Yuusufa dugg na ca kaso ba ba mu duggee ca kaso ba itam waa kaso ba ñëpp gis ne nit ku baax dugg si na ci biir kaso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax qataada moom dafa wax ne balaxna an ihsanahu kaana yudawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi وقد وصل في السجن قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول ابشروا واصبروا تؤجروا ان في هذا الاجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نرجو علينا لما تخبرنا به من الأجر والكبرة والطهارة فمن أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من sëriñ boobu ñuy wax Qataada nee na ku doon jëf-jëf yu rafet la ci biir kaso bi mu ne daf ko mosaana feebar ci biir kaso bi nee na mooy jóg di la wutal ay garab di la faj nee na yow njàqare nee na itam ku daan fàllu ci na Yuusuf fekkoon na ci biir kaso bi aw nit yoo xamante ni te nama seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar toog na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu gërët wuñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kaso bi mukk fa la ñuy tege ba natt bu ñu leen bi yàlla teg nekk natt bu tiis di leen njaqare yàgg waaye ñun fan yi la leen doon wax ci biir kaso bi lan leen dégg leen te muub su ngeen déggee te muub lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yoon boo xamante ni ku ca jot dootoo wax dara yéen na ngeen xam ne lii nattu la rek bu leen yàlla teg lu mu yàgg yàgg dana teggee moom bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ah yow waa ji de yow ku yàlla baax yaa rafet jim rafet jikkoo ca rafet waxtaan yewdare ɗi noddugeeti kaso belleeji kasus allah nafirata balɗe ñil sax yëgatu ñu wetetu kaso ñi naan bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu nekkee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla day jël nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fa ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak gis nga leen man maay Yuusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñun ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ne Youssoupha doon na ko waxtaan ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ne ñaari nañ ci kaso bi ànd ak Youssouf ñoom ci kaso bi rek moom mu toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis leneen ko daal yow Youssouf ñun dañ loo dëkk ma gën na nan ba amuñ ci yow sago yus fa na leen nag ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee dama tëndoon itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba mu duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moom ma tabal tey fii ci kaso mu ne kon nag na tey ci man loolu daf leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñëw nitu yàlla kenn du ko ñëw ko ndax boo ko ñëw koo da koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek muy gën gën nga mën a jariñ ci moom te li ñu wax naan te ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba ngeenaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu moo mel ni kon même ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di complotoo ne daal nañu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu nanu ko laaj ne ko daal gént nanu te mu jëm ñu fi rek gént mu mel ni kon dafa xaw a nuru ne ñoom daal ñu koy diin ak tuuti kon la leen Yuusufa doon tere mel na ne am na ndax ne ni commencé nañu diin ak kenn ki daal di jot te moo di nga xamante ni moo doon e, jox góor gi muy naan maanaam moo nekkoon serviteur am mu ne ko inni raaytuka anni fii bustaanin fa idaa ana bi asli كرمة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكان كأس الملك بيدي فعصرتها وسقيت الملك شربة وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سابسا saya pindah komand dia nama game mu mel ni dama nekk ci benn jardin mu mel ni dama nekk ci benn taatu garabu raisin nee na ma tagg fa nag ñaari cëggu raisin nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan nag ba mu nekk ji nee na koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yuusufa gént googu lan la